يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وفي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى bana allahu lahu mithlahu fi la mbir mi nekk fii ku fi nekk loo am loo am ku ko def ci yoonu yàlla danga dem ba soxla ko tey jii yemoo ak ajjuma 20 mai TV moo ngi fii ci dëkk bu ñu wax Mbayeen bokk ci commune bu Ñomre te weesi inauguration jàkka yi nga xamante si ne meeru gox bi di Moubarak Lo moo ko fi tabax ci alalu boppam tuddee ko nag way juuram bu góor boroom borom Manaarul Huda te oustaz Ahmadou Lo تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واحصروا ثمانكم هذا فإنه ثمان قل خيره وقصر بلاه واستقر كل منا منا بترب دنياه وخفل القافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين خريبا كما كان مبتداه فواخرته يلتاه في يوم تصل فيه الفضائل وتصل حليلنا فيه الجوارح والحاكم هو الله يوم يوم لا تملك النفس لنفس فعل ولم يوم في الله وفي الحديث أربع من الثقافة جمود الهين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وفي أيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مشي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مشي الليل حتى تلبسوا الشمس من مغربها يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين gis naa ne des na lu baree baree baree bari luñ ci war a def ci taaral ko ci taaral ko taar goo xam ne képp ku lislaam képp ku lislaam ñor bu duggee ci barab bii wala mu taxaw ci pent mii dana ne ah waa yàlla ñor na leen loolu nag lay tax ñu mën koo am mooy ñu am pas-pasu mu dàq suñuy kër dàq suñuy néeg mu dàq suñuy kër dàq suñuy néeg ku am dërëm nu indi bu mu xeeb ku am ñaar dërëm na indi ku am million nu indi ku am milliard na indi bum ko naw suñu borom xeebul dara nawul dara gis nga liggéey bi ñu liggéey nii tey moom mi nga xam ne moo ko def initié ko jàpp ci ëpp li ci ëpp mu def ko moom ak ki nga xam ne romb na maçon yi di liggéey mu xam ne néegu yàlla la ñuy liggéey laa wax déglu leen baax li may wax xolam sedd ci mu ne leen yéen ci liggéey bi ñu ne ko waaw mu ne la waaw leen góor waaw leen góor googu la ci am mook moom ñoo ciy bokk pay suñu borom noonu la toll te du yàq ci payam dara nag kon ku ci def sa dërëm bu àggee ñu évaluer ko muy ay milliards dangay am tiyaaba yi ku def ay milliards ci néegu yàlla kon nag bokk yi bu ci kenn xeeb dërëm waaye bu ci kenn naw milliards lépp lu waay di def nag na ko def te yàlla rek tax te yàlla rek tax ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp lu ñu ci def bépp jaamu yàlla buñ ci def yàlla nangul ñu ko ñi ngi fas yéene wax ci kàddu suñu bàyyi Aliou mbay moom mi nga xam ni mooy chef du village bu Mbayeen mi ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullah nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant di leen dalal jàmm te yi leen mastawu ci coono yi ndax tàng na te yitte yi bari na di sant monsieur le président Moubarak Lo nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ci jëf ji mu jëf fii ci mbayeen gi nee yàlla na ko yàlla suñ borom fayal boppam di sant nag suñ kilifa yii fi nekk ndax kàddu yu lot nañ ci lool te it ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax ci kàddu yi ñu jël ci seen kanam nii waaye nag da di ndigal loo xam si nii ah sañu ñu koo bañ loolu rekk moo waral suñu kàdd yi mu barag loo waxoon naa def nga fi lu kenn deful ci boroom doom bay tànk yi ñëw mbayeen te loolu seede saa ngi nii tiim làmp yaa ngi fi làmp yi ne dañoo bëgg mu dolli ko bu baax kon sëñ barag def nga fii ci mbëyeen lu rëy a rëy nit ñi nag ñu bari ñang fi ñu bari bëggoon nañ laa gis ñu bari bëgg nañ laa xam ndax sa jëf ak sa liggéey ak li nga jëf fii ci mbëyeen lii maa li nga koy xamal dëkk yu bari ñaanal nañ la dëkk yu bari laaj nañ ma la dëkk yu bari bëgg nañ nga taxaw fa muy dëkk fii nu wër waxuma la sun 48 wala village yi dama la wax ni ñi bokkul ci village yi dañ laa soxlaa gis dañoo bëgg nga ñëw seen dëkk nun day nun waa Mbayeen bu dee ay gor lañ xam naa sax mënuñu laa fay waaye daañu la jéem a fay ndax fay gi mooy waxtu wu jot ñu taxaw ci sa barab bi julli ko ajjuma ju ñëw kenn bañ a génn dëkk bi ñépp sàppe fii toog julli muy lu wér ñu xam ni defal nga nu lu rëy fuñ jullee ñaanal la fi man nag sama wax dama mënoo la wax waaye yal na la yàlla ak yonent bi foo bëgg a àgg yal na la fa àggale foo bëgg a àgg yal na la fa àggale lii ma lay wax ci sama xol laa ko tibbee bu ma masaan ñëw débit bu am lu jeex danga ma naan bindal débit ma bind débit jox la ma dem ca magasin ba jël noonu la wala du noonu débit bu ma lu ma sa jeex rek mun ma na maçon bi def débit mu def débit ma dem amul werante amul dem amul dikk kon sëñ barag dénk nañ la yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba loo soxla ci réew mi yal na la yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba jox. man nag dama jóge ci këru diine ndax bis bi may wax ak yéen maa waroon a jiite jumaa Dakar kon ab moo ma yar xam naa su ma ko waxee da ngeen ko xam mi ngi tudd oustaz Ahmad Moubarak loo même seen jumaa ji su ngeen ko nangoo moom laa leen proposé ñu tuddee ko ko ndax man moo ma yar man naa wax ne lu ne ci man rek. moo ko ci def yàlla nag moo ko ko digal waaye man nag moo ma yar daf lépp ci man moom nag sëñ ma saxit ba ca kokki moo ko yar moom kon ab chaîne la rek sëñ Baara Mbàkke tamit yàlla dañoo boole ci deret ndax man sama yaay waa ñamre la sëñ Mataar Naar mooy maami sëñ Baara mooy maami sama sama yaay tamit kon nag bokke nañ foofu tamit waaye yàlla moo xam ñu muy boole ndax moom moo wax ci alquran naa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum kon man xawma woon luy mbayeen waaye yàlla moo ma indi fii su la yàlla indee fenn nag danga koy nangu ndax man kat dama mas ñëw fii doon dox ba ba ñëw ci garab gi ci sump gi yaakaar naa sump gi miin naa ko su amoon nii sump sax mën naa leen wax ne xam naa sump bi nu mu mel dama daan toog ak ñoom sëñ Talla Mbaye euh, Mbub ak ñoom Amdi ak waa village bi yépp yaakaar naa daal fii miin naa fi ñu bëree bari benn bis dama ñëw xool bayaal bi bayaal bi yaatu lool may kaf ne leen seen bayaal bi daal jumaa jekkoon na fi ma ne leen fu ngeen di jullee ñu ne àjjuma ju ne daal dañuy dox dem ci beneen dëkk ban dëkk ngeen di jullee ji daaro gay ma ne leen yéen daal war ngeen a mat juma léegi damay ñaan yàlla nañu àndandoo ñun yépp ñu ñaan yàlla mu may ñu fi jàkk ma ne leen waa léegi nañ leen fondation noonu la ñuy kafe ñu fondation ba pare ma ne leen nañ yëkkati ñu yëkkati ma ne leen nañ kule ñii kafe kafe kaf ba yàlla def na lépp pare na te benn dërëmu nit dugg ci lu dul sama poos bi kooku tamit mën naa leen ko wax mu musuma nangu nit jox ma dërëm man ma eh, def jihaad pour yàlla àggale ko te ni ma ko defee fii moom laa ko defee nduukuk fi ñu toll nduukuk maa ngi ci soroor te foofa sax ñeent la ñuy wuti xëy na suñ paree ngeen nañu ñëwaat leen fi yokk fi ñaar eh, niñ ko defee foofu tamit def nañ ko ci yeneen dëkk yaakaar naa mën na lu mat ñeenti jàkka yoo xam ne fi ñu toll nii ñu ngi ciy liggéey pour wax leen ndax fii dañ fee dëkkul am na ñoo xam suñ demee ba àllaaxira dañuy ñaan yàlla mu may leen benn seconde euh, ñaan yàlla mu indiwaat leen fii pour ñu def fi lu baax moo tax su fekkee yaa ngi fi li yàlla di wax yu saari'uuna fil xayraati wa yad'uunanaa raghaban wa rahaban wa kaanu lanaa xaashi'iin soo nekkee fii fii la mbir mi nekk fii ku fi nekk loom am loo am ku ko def ci yoonu yàlla danga dem soxla ko soo demee ci suuratu zumar kii wax xiina taral azab la wan na lii karratan fa akuna min al muhsinin day ñaan yàlla une seconde pour mu ñëw defaat lu baax comme ñi ngi fi lépp loo am def ko ci yàlla xam na ne lii may def am na nit ñu ma mën a jënd fuuf te defuñu ko moo tax ku ko yàlla may santal yàlla man tamit dama leen di sant ndax su ngeen nanguwul woon ma def ko fi ngërëm ñi ma ci yàlla mel ko am kon man maa leen war a sant jërëjëf um qaalu xayra للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du cinq Coran